waa dig dañ ma jël si bii pas du central dig ñoo ma jël si. waaw police su dig. fan foofu li may wax waa dig ñu ngi may dégg. foofu mhm. foofu ñu yóbbu ma. bi nga defee une semaine. une semaine am benn maire ah, bu ñëw taxaw xool ma ma xool ko mu waat ci alxuraan mu ne man maa dugg këram 17h ma jël arme ma teg ko ci boppam ma jël 26 millions million ak or. te police ba la ko waxee. dig boobu génn naa central ba ñëw 100 mètres ñu waa dig jël si waat ma. dégg nga si la ko euh. léegi sax xoolal laa bi jigéen. bu naree demee noonu rek ñu bàyyi. amul dégg amul seede ma ma rek ma dem. dama bàyyi naa la kon bàyyi dama ko waxoon duma ko gëm yaay. ñëwal yow xëy na ñu fëgg ma ñu laajte ma ni maa ngi nii yaay ñu takkal ma monoti. bul koñ bi mel ni màggal gu taas. ñu jiital mak suma jabar yóbbaale sumay doo am wuy naa wooy soo dundoon li du am foo nekk yaay kaay waluma boo nekkee xale teel sotti lee boo doful baa nga dee demoo prison di nga tëddi hôpital mon silence ne signifie pas que je reconnaisse le fait de m'avoir enfilé le mbubu d'un coupable eh may boy maandu la vie est un bien perdu pour la personne qui ne l'aurait pas vécu comme elle l'aurait voulu eh may boy maandu pourquoi avoir perturbé ma vie pourquoi avoir me mettre en mal avec mais fan se mettina ça ne peut échapper à son destin et tu en profites pour me mettre en mal avec mon pays mon pays kon bañ na te dooma taxa bon bañ naa ay waay ci mentalité ndimbal ak yërmande laa jógte woon nekk yow mbubu bandi nga enfilé bëgg a jël sa yére bandi enfilé ma téyel may booy dund boobu am muccu hmm. yottu sak daw agressé mbaa te téyel may booy list boobu duñ ma ci lim hmm. kon bañ naa dooma taxa bon bañ naa ay waay ci man salité di